surtout euh, ñu ngi lay nuyu di la ziar di la wax nga nuyoog internet yi lay setaan. maa ngi lay fay bu baax Fama di nuyu mbokk internet yi ñuy suivre bu baax di content ci invitation aussi. d' accord donc euh, nga def benn cover euh, nga reprise benn chanson boo xamante ni Massane moo ko def. Mhm. mu content si trop. après loolu sax dinañ si ñëw nan la ñëwee. Euh, c'est un plaisir aussi ma yàgg bëgg son bi aussi di ko déglu voilà ma ne pourquoi pas ma ma ma defaat ko génne ko son bi waaye ci sama maam voilà noonu la demee. ok est-ce que euh, yomboon na. Euh, reprise bi parce que Massane ku ko xam-xam ne dafa am ben voix bu. si aiguë en plus dafa mën yuuxu. Euh, oui oui bon ci suñu ci suñu capacité hein ñu ñu ñu góorgóorlu ci bu baax yag déglu son bi et aussi di ci entraîner ñu def ko affaire bi réussi waa méttiwul won en fait d' mm. Euh, est ce que moom da nga ko tàggoon avant nga koy def wala da nga ko defaro surprise comment ça s'est est passé. Euh, bon tàggoo ma ko c'était une surprise mu mu déglu ko moom aussi mu content ci trop vraiment. Mm-hmm. lan la la def tey nga reprendre son bi moom mu féliciter la content ci son bi ni nga ko defee sax mu muy xalaat ne que gën nga ko def que moom la ko defee. Content mm-hmm. vraiment ak euh, ni mu apprécier affaire yi vraiment fooguma woon ne sax que euh, dina dina dina mel noonu. content mm-hmm. woo ma waxtaan ak man aussi donc euh, nga génnee sa première single Bobu, euh, sa premier single du moins mu daal di nekk bismillah mhm. loy commencé da ngay né bismillahir rahmanir rahim di kii ko ci alhamdulilah rabbil alamin euh, nan la démé effectivement comme ni nga ko waxé non rek bismillah dama né comme comme maa ngi dogu dugg ci musique ci ci way sax mané damay def ben son way ci suñu sang bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee ko bismillah mom la ci way non voilà loolu mo indi bismillah d'accord donc nga jóge ci loolu nga way jigéen ñi parce que quoi qu'on puisse dire euh, violation fait euh, la violence bi nga xamante ne ñu ngi violenter femmes yi euh, di leen dóor ak di leen di toroxal mm-hmm. lan la inspiré c'est parce que da nga féministe voilà, mm-hmm. nan la demee oui surtout c'était ça le but nak. voilà pour pour pour dénoncer wax wax ak ak góor voilà que ñun ay jamaa lañ ñun ñoo ñun ñoo voilà war nañ ñu gën a aussi ñu xool bu baax a baax a baax ni ñu ni ñu doxalee ak ñun moo taxoon son bi aussi loolu loolu moo ko waraloon. ok sa morceau musique fan la jógee. Euh, mën naa ne ci ci ci ci tonton Youssou depuis depuis bas âge euh, dama yàgg di ko di ko déglu sama yaay bëgg ko sama papa bëgg ko chaque jour sama papa su wàccee rek day teg musique am ñuy déglu Youssou des fois dama war a jàng wala ma war a réciter sama leçon ñu teg Youssou Ndour bi ma war a réciter sama leçon di di di di tari waay bi mm, foofu la sama am euh, jóge bi ma nekkee xale may wayantu di wayantu ba voilà. Mhm. Euh, comme ni nga ko waxee euh, est-ce que d'habitude nit yi bu ñuy nekk di way sax dinañu kër fenn wala mhm. lii wala yow da nga débuté rek commencé euh, di wayal sa bopp wala nan la demee. bon yàgg yàgg naa ci bi ma nekkee xale ba tey dama tàmm di wayantu wala su ma nekkee ak sama waa classe yi fa ne di way di way mais waa kër gi nanguwuñu quand sama yaay avant muy muy nangu so sonn naa mm-hmm. sonn mais quand même dafa gis ne voilà bëgg naa affaire yi te maa ngi ci avancé lu petit à petit mm-hmm. mu mu bàyyi ma ma def ko mm-hmm. da boole jàng bi ak si si dañuy damay jàng damay jàng fan nga euh, maa ngi def euh, formation géomètre ci Digit Afrique voilà euh, ban style de musique ngay def ah musique bàyyi bàyyi ñu dara en général yan tam ngay faxal di développer um, surtout mbalax bi traditionnel bi mom lay gëna di di, di fowé voilà ok yan tam ngay développer c'est-à-dire comme tay way nga jigen ñi way sayidina mohammed sallallahu alayhi wasallam est-ce que mën nañu xaar des faits de société lo xamantene voilà si mën nañ mën nañu xaar ci ci ci ci lepp ha ci lepp ci xalé tem tem yu tem yu bari parce que bi dañ ay son yo xamantene ni mu ñuy dañ ci dinañ dinañ ko génné dank nank inshallah mbiru musique xam ne euh, yombul da nga bokk si label wala autoproduction ngay def. ba ñu ngi si label bu tudd digit digit prod ñu foofu pour le moment. ok euh, est-ce que yomb na euh, yan problème ngay jànkuwanteel ak sa musique wala amu benn problème boo xamante ne yaa ngi koy jànkuwanteel. bon. dañuy dañuy dañuy doog a débuter hein ah, mon mon mon voilà problème du am mën na am mais bari parce que mm-hmm. dañuy doog dañuy vraiment ñu ngi ci ay loxo yo xamante di ñu ngi jappalé bu baax ba de trop mm-hmm. tu vois est-ce que mën nañ xaar ay concert wala tournée bo peut-être mën ko à l'intérieur du pays oui bien sûr bien sûr loolu ñu ngi ci parce que visé wuñu fu fu ndaw c'est dañuy visé fu soxé inshallah mm-hmm. voilà voilà euh, lan moy sa ay projet

ah incha loolu moom bëgg nañ ko bëgg nañ ko lool <laughs> bëgg nañ ko. benn acapella waaw. kër gu dugg am na caat mooy ki mujj juddu ci famille bi day faral nekk xaritu yaayam wala baayam du ma nangu ñuy dëkk sama nopp yi naan caat yi dañoo réew dañoo yàlla di ko non non non suñuy waajur ñoo ñu jël teg ñu ci Merci beaucoup. Doria <laughs>